du la ko nekk luñ lay may ku bëgg a indépendant di nga indépendant mais ku ne xam na ne bi bi bi bi bi jomaay jëlee réew mi ba léegi gars yi changé nañ seen taxawaay de. changé nañ ko ah waaw waaw ak seen toogaay tout le monde nag ñëpp changé nañ seen taxawaay seen toogaay ak seen doxalin tout monde waaw loolu moom lu am la. Alors, ah. donc le projet est entre de bonnes, mains. Voilà. <laughs> alors exactement euh, Ginaw loolu mbokk ci spectateurs yi dañuy daal di jàllaat si euh, leneen ah, euh, par rapport à la bataille, li nga xam une actualité politique bi

Euh, duñ si xam naka li si di génnee alors ces critiques sévères il n'a ramené le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di porter à l'entourage justement euh, de Macky Sall tey jii nag loola waral li n'a xam que modi di APR mu daal jàpp ne dina di répliquer euh, par rapport ak li n'a ramené que modi ces accusations donc au bokk na si li n'a xam que moo la baisse du prix de certaines denrées de première nécessité ni n'a xam tam non la ko Macky Sall yokkoon bala muy dem waaye itam bokk na itam si jafe-jafe yi nga xam ni itam bëggoon na ko def si ndox mi. Euh, aussi augmentation euh, d'autres d'autres alors ces révélations yi nga xamni itam jomay def nako président que ni déstabiliser exactement euh, ban concrètement daal réplique li président wax président Bassirou man damay ci ci hmm. président Macky poser acte yu mel bi mu njëkk a def bi mu poste premier ministre bi di ko delloo mu bay xaaj bàyyi sefe mhm. xam nga c'est fait exprès wax la ko sànq mu war am mu mu dese ko xaw ma mois xaw ma mhm. mois sax mhm. pour mu dem muy fal ay nit di signer ay décret di def lu ko neex loolu sabotage la sabotage la n'est-ce pas te ñaareel bi nee la caisse noire bi président Bassirou nee la fekk fa dara yow caisse noire bi kay defena naa durant sa mandat yep la wara jeex hein mais nee na fekk fa dara. mais ñom wéd nañ que ni caisse noire bi pas 3 mois la nga koy renouveler exactement te Macky Sall janvier bi ak février ak mars la jël léegi avril mai juin le Bassirou commencé wara am caisse noire am ko par ga fa nek bon en tout cas dal xana même buñ ko dee jël sax dina am mom Macky bi mu yoroon lu ci dess xana du ma dafa dafa ah. ñaata milliards plus de onze milliards hmm. mais loolu dafa bëri nga bëgg ko yóbbu noonu comme ça loolu dafa c'est très facile li ñu ko waxal daal noonu la Macky lu ñu ko waxal moo ko def ñu ne waruñu koon bàyyi mu génn dëkk bi exactement non man nag d'accord ma ci loolu ndax ñun Sénégal dafa am tra tradition bu ñu am hmm. suñu tradition mooy eh, mu duñu toroxal nit surtout kilifa bu mënee nekk Sénégalais dina def le maximum pour loolu bañ a nekk. donc quatre-vingts morts yi yëpp. loolu lépp tamit ci waxtaan rek may mujjee. lépp ah. waaw waaw. mënuñu fi toroxal kenn bu mënee nekk ak laa wax. Pape non. xam nga nañ ko àttee parents victimes yi euh, signé nañ ay pétitions nañ mais dañ koy àttee euh, euh, wax ne leen metti si Macky Sall lépp ak seen doom yi faatu waaw d' accord naa mais mën nañ àttee affaire bi hmm? buñ xamee ki tooñ ñu ne kii moo tooñ ñu daal di leen indemniser ñoom ñi ñu tooñ mais fa lay yem un hein, président un président bi mais mais dafa am immunité mënuluñ ko dara c'est pas possible lolo Macky ah bien sûr ancien président là,

wala ñu woo ko ci wala wala wala de mënu nekk mais ses proches collaborateurs c'est-à-dire ñu doon liggéey ak ñoom waaw mooy li ma wax ñooñu peut-être euh, euh, les fautifs ñoom Ismaïla Madior Fall waaw les fautifs ñeneen ñi mooy ministre yi ok ministre yi député yi hmm. DG yi président ay yu kenn xamul noonu ñu ñu ndaw ñi ku ci laale dinañ rëkk ndigam n'est-ce pas comme ni mu waree mais moom en personne ba tey institution la ndax ba léegi dañ koy fay salaire dafa am ay garde dañ koy jox mu lekk

non dama dama yaakaar ne daal def na ay erreur d'accord. Hmm. mais ñam ko sant ñu def ko ñooñ la ñuy waxal moom président la président la mu mel ni comme actuellement président Diomaye. Hmm. nommé na premier ministre nommé na ay ministre bu ministre am détourné dara mais moom amul dara loo ko ciy wax amul dara loo ko ciy wax moom dafa defoon le bon choix la def. jël la hmm. nit ki fal na ko. kooku jël na jaawale na poosam ak poosu euh, askan wi mais lu mu ci mën lu dul dàq ko tëj ko. mais enquête yi su révélé que ni euh, peut-être mi si ginnaaw mbir yi et que àndoon na si. non loolu mënul nekk. mënul nekk mënul nekk de toute façon président moom. Hmm. non dafa am lu mu laaj. mais ses collaborateurs nag moom kuñ ci war a laal dinañ la laal mais en tant que président moom wax dëgg yàlla.

waaw bon loolu moom ndax xam nga moom ñoom ñu ngi ko doon xaar mu nekk euh, fële ay ONU affaire mm. demee noonu mm. foofu lañ ko doon xaar mais nag affaire troisième mandat bi mu doon jéem dugal loolu ko tàrdel ba mu mujjee foofu ah site la quoi ah site la mu mujjee foofu mais foofu du woon place am mm. nest pas comme li Abdou Diouf yor affaire yu demee noonu ci loolu lañ ko doon xaar quoi wala lu gën a kawe ay nations de nations unies ak affaire yu demee noonu voilà francophonie ci yooyu lañ ko doon xaar mais nag troisième mandat bi mu dugal moo tax yooyu mënatu ko jot. Mm. n'est-ce pas ndax dafa dafa xeeblu boppam mënatul jot loolu ci loolu rek la mën a euh, jot. Mm, te ñun loolu ñu ngi koy ñaawlu en tant que suñu président pare. Mm, di liggéeyal France. alors c'est clair voilà c'est clair. Mm-hmm. Euh, ñu daal di wéyal ba tey euh, ginnaaw ki nga xam ne moo di Macky Sall ñu daal di ñëw si ki na xam ne moo di Bougane Gueye Dany